asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV nuyu naa leen ziar leen tey nag ñu ngi àjjuma 17 septembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu andil ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 17 septembre 2021 dañuy ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi nag tey xatam mu njëkk ca xëy fes moom moo di Modou Lo le roi des arènes roi des arènes ba nag yëglikaay ba daa daa mel ni daal la mu xëy tey gis ko nee na Modou Lo mii mbaa nekkul dansé si ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé wala boog sax yëglikaay bi daal jàpp ne moom Modou moom dansé la bu rëy ngir Ama yëglikaay bi nag la tax mu wax loola nee na Modou soo bëggee dégg-dëgg daa mel ni waa Pikine daal Modou Lo saa yu bëree ak ñoom du leen jaarale aw yoon daan leen la leen di def ñetti yoon yom fa dugg yëpp ay ndam la ca am yëglekaay ba fàttali ñu digganteem ak ka nga xam ne moo di laay bay jamono jooja nag laay bey mu nga nekkoon école de Fallaye Balde ñu bëre woon la 3 décembre 2006 ne na bés boobu la Modou Lo njëkk a dugg Pikine daal di daan ka nga xam ne nii moom moo di laay bay ñu ne déet ne waay mu dellusiwaat digganteem ak Eumeu Sène yëglekaay bi ne na le 31 janvier 2014 la ñu bëre tamit Modou Lo daal di koy daan ñu foog na ca la ñuy yem mu continué ti ñëwaat digganteem ak Eumeu Sène le 29 juillet 2019 mu daan. daan ko jël bu rëy fa nga xam ne moo di ca stade Léopold Sédar Senghor moo tax yëglikaay bi jàpp ne day Modou mii na Ama def ndànk ndax nag danse bu rëy rëy la ci moom sunu lamb moo xëy tey amee boobu gis-gis keneen koo xam ne moom doome Pikine la di kilifa ca Pikine waaye tamit di kilifa ci lamb muy Pape Diop Boston yëglikaay bi xëy na tey dalal ko seq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatoo mu mel ni ki nag ñëw na ci wéradi gi nga xam ne moo ko tëral depuis boobu ba tey bëgg a ca la mbir ma commencé moo di ca combat Eumeu Sène ba ak Modou Lo ne na bés boobu daal ca la commencé nag yëg la nga xam ne ni lu doy doy waar la ci aw yaramam yëg li ba ba tey continuer wax ak moom mu xamal ko ne nag feebaram boobu moom sonn na ci ndax nag ne na ay otom sax jaay na ko ngir faju yemu ca ne tamit amut ci làmb ji ku nuy tudde ab VIP woo xam ne daal gis na na ak ay bët nga ñëw soutenir ko jàppale ko moom Pape Diop Boston yëg li kaay ba continuer waxtaan ak moom mun na koy itam nag ba docteur defee la nga xam ne moo di wàllum analyse daal ci yaramam daal la ñu gis daal moom moo di daal boo bëggee dëgg-dëgg gis ñu lenn la dul fatigue boo xam ne ab coono bu ko jàpp rawatina nag jamono ya nga xam ne mu ngay nekk ndaw la nga xam ne moom la ñu ay poids ak ña nga xam ne ñoom la daan jàpp daal ñëppoon ko foog gënoon koo dis te daal mu daan bëree ak ñoom na ko neex yëglikaay bi daal xëy moom la xëy dalal moom mi nga xam ne nii moom moo di Pape Diop Boston bu nu continuer ba tey dañ fay jóge dem parcelle ginnaaw Pikine yëglikaay ba nag parcelle mbooloo la dugg ak deux victoires ya nga xam ne moom lañ am ren ak trois défaites boo xaymaa combat ya kon mu toll ci cinq combat maam les nag ma leen di tàggat daal boo bëggee dégg-dégg nee na bii bilan moom bilan du ko gën a bon ndax daa jàpp ne bilan ba moom baax defu ko tey suba waxi noppi bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi moom la mu nu xëy xamal ne boo bëggee dégg-dégg la ko commencé maanaam ci mois d' octobre ba bu jibuwaatee daal maanaam fukki journée ak ñeent quatorze journée yoo xam ne kale nañ ko ci wàlli làmbi simple daal dana am yëglikaay baa xëy tey dinu ko wax mu mel ni ki nag le dimanche 3 octobre le mbir moomay commencé ak ka nga xam ne moo di jax ca stadium Iba Mar Diop waaye ka koy tëj tamit moom moo di Assane Ndiaye di ko tëj dimanche 26 décembre fa nga xam ne tamit moo di ca stadium Iba Mar Diop loolu di lambi simple yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu ko moom sunu lamb les arènes la ñuy dem keneen koo xam ne nii moom xëy na nu ko muy Balla Gaye numéro 2 ak way juróom wu fi jóge bu yàggul muy duubalees ci aw photo ak nga xam ne tamit moo doon aw turandoom di père Balla gay moo it tamit nga xam ne wuyu ji na boromam yëglikaay ba nag xëy tey sampub laaj ne na Balla day dina wet lool dina jooy wéet bés bu demee ba wàccaat ci géew war a bëre gestu du gis turandoom di Balla Gaye 1 ñu ne déet na waaye mu gestu du gis way juram di duuba lees ne lii moom dana doon wéetaay lool lool lool te itam dina nekk lu méttee métti ci moom kenn koo xam ne nii moom yëglikaay bi daa xëy toppal ñu ko muy Gris doo moo xam ne daal yëglikaay bi nen vrai kaala kaala boo xam ne daal bu doy doy waar la ci écurie Fass ak Ndakaaru ndax yëglikaay bi nen Gris 2015 la mujj am ndam boo bëggee dégg-dégg teglante na ay année balance mel ni ki daal Gris Bordeaux daal fi mu nekk nii kaa daal la ko yëgle kaay bi jàppe keneen koo xam ne lii moom yaakaar jamuy am moom moo di Luc Etienne Luc Etienne nag doomi France la waaye mooy tàggat Bombardier nee na daal li am ba des la Labonaire moom nee na moom Luc Etienne daal yaakaar na ne xanaa kay blessure a ko jàpp waaye waaye daal jàpp na ne gisul ne leneen a ko war a jàpp lu dul blessure leneen loo xam ne nii moom sénégalais xam nañ ko muy saafur door ba nga xam ne da at mu jot day fa nga day am fa nga xam ne moo di ca réewum Niger mel ni que nag saafur door ba ginnaaw deux mille amul amuloon ndax covid 19 ba wala boog coronavirus ba yëglikaay bi ne nag boo bëggee dégg dëgg daal maanaam bërki demb wala boog demb ci alxames ji daal daa mel ni conseil des ministres bañ ca génnee ñoom waa Niger daal jàpp nañu nag mu mel ni ki mbir mooma moom dana am ren le vingt quatre décembre ba le deux janvier daal lay commencé mel ni kon daal tournoi boobu nga xam ne ni ku ko wax sa xel dem ci yax yi jub ni muy saafur door ba ndax fa la ko jële woon tasoon fédération wu Niger ba dàqulu ministre ba mu mel ni kon daal dana amaat ren kon daal ku yebu waaj waajal sunu gaynde yi ndax ñu dellu ca Niger jaaraat ci tànki yaxi jub yi ni ndax nag yàgg nañ faa dem di indi ay médailles fekk waa Niger ca biir Niger gañe leen jërë ngeen jëf kon tey loolu lañu ñu yi indil moo xam lu sunu làmb la moo xamle les la ci wàllum ay xibaar yu jëm ci làmb la nga xam ne nii nag moom lañ ci njëkkee wala moom lan sunu làmb andil tey ci xëtamu njëkk ngeen gis ko noonu muy Modou Xarañ Lo le roi des arènes ah bu parcelle Assainies waaw le roc des Parcelles Assainies comme ni ñu koy wooye waaye le roi des arènes yëglikaay bi nag moom la xëy tey fésal ko Modou moo xam ne ni daal mu ngay nekk ci ay échauffement wala ay tàngalu yaramam yëglikaay bi nag nee na Modou Lo bu bëggee dégg dëgg est ce que du nekk danse ci Ama Baldé ndax Modou dug na pikin 2006 daan fa laay bay ñëwaat fa 2014 daan Eumeu Sène dellusiwaat fa 2019 daan Eumeu Sène muy ñetti ndam yu mu fa jëlee moo tax yëglikaay bi laajte na est-ce muuru mi wala sax mu jàpp ne dansé la ci Ama Baldé waaw parce que euh, boo bëggee dégg dëgg amagu fa déggu fa mu muñal waaye nag ah lamb la fa am adversaire la fa amati adversaire boo xam ne est-ce que laay bay la est-ce que Eumeu Sène la déedéet Ama Baldé du ñooñu te ñooñu itam du ñu Ama Baldé waxuma ko nag ndax ne Ama dafa dàq bëre ñooñu wala dafa leen ëppale dara waaye dama jàpp ne adversaire bu ne am na lu ne ci moom lu nekkul ci moroomu adversaire am ci moroomu bokk ka nga xam ne ni moom moom la bokkal sax benn écrit Ama Balde mbër la boo xam ne nii xam naa ne bu mu lu nekkee dansé ci moom itam nañu jàpp ne Ama itam man ci sama gis-gis jàpp naa ne moom it dansé la ci Moodu ndax li tax mooy mbër mu dogu la mbër mu gëm li muy def la moom Ama Balde te itam nag. xamut lim li yow adversaire li moom li mu indi rek la la xam parce que loolu la ñu gis muy bëree ba mu duggee ci làmb ba tey loolu moo ko indi tey ci niveau bii mu nekk bay jongante bay jongante couronne roi des arènes waaye da dam daka seq ak koo xam ne itam moom a ama waxal na ko boppam bër ki dem ne na Modou Lo ku ko bëgg a daan faw nga série faw nga teg say mbir ci yoon faw nga liggéey te wax na dëgg ndax Modou itam damay wax ne tollul ni ñoom waaye wax dëgg yàlla ah naqari naa faire kon combat boobu yàlla nañ ko fekkete tal ko du nuyu le promoteur Luc Nicolaï production bi nga xam ne moom moo tëgg boobu bés buñ jóge beneen doomu Pikine boo xam ne dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram muy suñu papa Pape Diop Boston ba mu tëddee feebar ak yàgg na mu mel ni ki nag feebaram boobu dikkaat na ci ngeen gis ko noonu ak ay médailles mu mel ni ki moom maanaam euh, ay médailles yàgg na ko lil Sénégal ah yàgg naa participer ci ay Jeux olympiques ah ay Montréal fu ne dem na fa ay mus ay ay Moscou ah Afrique jël na fi ay médailles yu baree baree bari mu tëdd tey feebar mel ni ki nag feebar ba moom li mu wax ne na ci combat Eumeu Sène ak Modou la ko affaire ba feeñu dafa naa bis boobu ku ne gis na ku newoon kesa ku newoon kera stade Léopold Sédar Senghor gis nga Pape Diop ba son ba ma seen daanoo na mu def ah loolu nag nekkoon loo xam ne nii mais loolu lépp li ko waral mooy bëgg sa gox sotle sa waa gox le si woon Eumeu Sène mais nag àddina moo tëdd noonu ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yëkkate ak jàmm li mu wax nag daw na yaram jaay na ay otoom ngir fajoom ak yu mel ni ki noonu mais bon ah euh, yàlla na ko yàlla wéral rek te bàyyi ko fi moog yeneen ancien gloire yi fi des ak bépp doomu aadama parce que mag la moo xam ne dëgg yàlla moom Pape Diop Boston gis nañ ni ah, bu Eumeu seen den daan bëre day takku bu Boy ñaar di bëre day takku bu amaan di bëre noonu waaye tey nag gis nga mais nag ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla yëkkati aussitôt tamit fii mu tollu nii la la soxlam taxawu waaw dama ngay wax fi mu actuellement jamono ji ñu toll nii la soxla soutien moral la soxla soutien financier la soxla soutien mental kon nañ ko ko defal jamono ji nga xam ne nii ci la toll waaye buñ bàyyi ba bëy mbuus moom yàlla na yéex loolu dootu ba du ma ne du ko jar waaye bu keroog itam mooy loolu waaw kon bi mu fi nekk rek ndimbal ca ka ko soxla ci jamono jam koy soxla daf ci am solo bu nu continuer parcelle mbooloo yëglikaay bi xëy ñu wan ñu Moussa Dioum deux victoires trois défaites noonu la yëglikaay bi wax gis ngeen seen entraîneur nee na bilan bi moom du bilan bu baax wax na dëgg maam lees ñu koy nuyu di ko ziar suñu waa jooju wax euh, xoolee combat yi bëriwul te défaite yi moo ëpp cinq combat la trois défaite deux loolu nag li leen ciy génne mooy liggéeyaat ndax par seen mbooloo yàgguñu koo sanc waaye tamit bokk na ci yi nga xam ne tey dañ koy compter ci làmb par rapport ak ay mbër yu nga xam ne feeñal nañ ko ak itam résultat yu nga xam ne ñu ngi koy def at yi yëpp waaye moo nekkul ne sa saa yu ba saa yu bàyyi rëbbee rek jàpp mbët waaw loolu mooy mooy li am bu ñu continuer li simple bi 14 journée mooy am bu ñu ubbee saison bi mois d' octobre ba décembre ba ñu koy taxawalaate quatorze journée yëglikaay bi moo xëy tey dikkal ñu ci journée bi ciy njëkk nag Jax moo koy tëgg le 3 octobre lay doon yaa ngi dégg loolu defe naa ne stadium Iba Mar Diop lay amee mu war fa teg 3 millions animation ba yaakaar naa mbéyang lum lay dooni ak moom moo ngom buñ ca jógee loolu kon mooy li simple bi tey nag bu ma fa jógee damay ñëwaat les arènes hmm? te lutte simple boobu Assane Ndiaye moo koy tëj le 26 décembre na leer foofu tamit ci les ci sunu làmb ma ñëw les arènes les arènes photo bi mu ñu wan daw na yaram Balla gay 2 boo xam ne leesa nga koy conseil père Balla Gaye Ndour taxaw ca côté ba ñaar ñu ñu génn àddina yàlla na leen yàlla yërëm leen aljana barke yonent bi sallallahu alayhi moo tax yëglikaay bi ne tey Balla bu wàccaatee ci géew bi dina wéet dina wéet waaw parce que nag ki nga xam ne moo la formé nga ko sa bopp muy per Balla gayndur nga gestu di ba war a bëri doo ko doo ko gis te saa bu daan bëri mooy taxaw da A Z mu topp la du bàyyi dara sa papa boo demee ba ba war a bëri dégg koy loxo mu ñaanal la loolu force la doole la te da lay renforcer da lay gën a may fit gën la may audace waaye nag yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal mooy def lu ko neex moo leen jël ci kàttanam te du fi bàyyi ñi fi des déedéet ñoom ña dem ñàkkuñu fulla ñun ñi fi des amuñu fayda da koy neex rek. yàlla na yéex nag buy ñëw te fekk ñu ci lu baax ak yërmandeem waaye itam terewul am na ñu fi bàyyi ak njaboot a ngi fi balla am nay kilifa am nay mag am na ñu koy tax am na ñoo xam ne ni mënuñu continuer di def la lees daan def ak la père Balla Gaye Ndour daan def ndax ñooñu ñu ngi fi kon ñooñu dem yàlla leen yàlla jéggal Gris Bordeaux euh, yëglikaay bi ñëw na ci moom itam euh, nee na daal kii daal ah un vrai cas à face Ndakaaru Gris Bordeaux daal cas la ci face Ndakaaru ndax nag yëglikaay bi nee na 2015 la mujj am victoire. mooy lu yàgg te itam ci année balance lim ca teglante bëri na kon giri ah mbiram daal fi mu nekk nii lamba joona waaye nag ah, amaat na combat moog Balla Gaye ñuy xaar ba xam fu wane di mujjee ki bëtam ndax dina ci génn ndax du ci génn loolu dañu yónni yàgg Jérôme la Banner mu nga xëy tey di wax ci le cas de Bombardier ak. Euh, wala boog Luc Etienne mooy wax Luc Etienne mooy l' entraîneur de Bombardier moom moom mooy wax ci Jérôme Le Banner nee yaa yaakaar ne daal Jérôme blessure am waaw dafa blessé daal moom nee na la yaakaar quoi moom yaakaar boobu la am waaw waaw loolu daal mooy sunu ñaan ñun ba ca Niger yëglikaay bi nag ah day amaat ginnaaw bi mu toogee daaw ren nag dañ koy amalaat yëglikaay bi di les arènes moo nu ko xëy xamal ne démb ci alxemes ji conseil des ministres bay am ca Niger bañ ca génnee la ñu jàpp Salvador bi jàppal ko ab dat gis ngeen noonuñu foto yi waa Niger a ngi noonu ñu wan ñu ko kon bu bëggee dégg dëgg le 24 décembre ba le 2 janvier lay commencé Salvador nag bu ñu ko waxee suñu xel day dem ci Yaxya Jóob ni ndax benn trophée la boo xam ne ca Niger boo fa demee lu ama am solo la fa waaw lu doy waar la parce que Niger itam bëre dañ ko fa fonk dafa am doole trop boo xoolee Sénégal à tout moment suñu demee championnat Serie A bi Sénégal bu nekkee premier souvent Niger ay nekk ci deuxième place bi wala des fois sax Niger gagné yooyu day am ça veut dire que Niger dañuy bëree waaw ndax euh, la fa jub Yaxya Jóob ni defoon mu nga fa tege ni dege kenn du ko fàtte kon ñu ngi ñaan buñ ca demaatee mois de décembre boobu yàlla nañ gañewaat saafara door ba indiwaat ko fii ci sunum réew di wax na tey loolu la fi yëglikaay yi indi woon muy sunu làmb muy les arènes di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu suivre di balu ñëpp àq ci àjjuma ji di ñaan yàlla jéggal ñu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu saxadatu daaray ni defal ko bépp doomu aadama yaa ngi dégg comme ni ko maam dabbaax doon waxee rek yàlla na yàlla tàppe xol yi te lam daan wax naan boo nekkee ci gaal gi da ñaan yàlla gaal gi mucc bañ ñaan sa ëmb rek mucc loolu moo am solo yàlla na Sénégal mucc yàlla na àddina bu mucc bu ko defee ñun ñëpp ñu mucc barke nabil Moustapha sallallahu alayhi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu xulle mi newoon ci caméra bi ak montage bi di ko ziar mais xulle nag tey daa am lu ma jaaxal quoi euh, xulle xaw ma dafa ndékkeegul xaw ma qu'est-ce qu'il a daa dugg si xaw ma dafa maa fàtte nuyu xaw ma na ma ne ko xulle yow nuyu woo ma mu ma dama laa gisul ma ne ko xulle loola daal man maa ngi ci biir bureau bi toog nga dugg si nga ne nuyu woo ma ah wala saalum saalum moom bu ñu xiifee dootuñu gis ah ñun bawol de bu ñu xiifee tam mën na new seere mais saalum nag dem naa fa na maa ngi leen di nuyu saalum saalum yëpp maa leen di sama rakka ngay sëy ba Kaolack nabu sëy na bu joom maa ngi koy nuyu mu ngay sëy Kaolack muy nuyu saalum saalum waaye daa mel daal bu ñu xiifee duñu gis parce que nag ànd naa ak ñoom voyagé ànd naa xulleeg hélas dem Gambie ay yoon waaye xiif daal ñemewuñ ko moom waaw buñ xiifee moom da ngay daal di gis ni rek dootuñ man lu bari xam naa lool moo ko jàppoon mais maa ngi koy bégg bu baax a baax di nuyu képp ku ñu doon suivre à travers Equivox TV ñaan la ñëpp jàmm jàmmante nañu ah oui bonne sëf la kii ah oui attention Jackson Dabo